bismillah waaye géej gi doo leen ci wax termine yéene kaay ne ñeent ci ay nappkat day waaw daal dina ñuy réeraat nag ci biir géej gi le mardi tali maa la ko wax musiba de kenn daal lañ for ca diwaanu Mbuur gële waaye gis nga Mamadou Ndiaye Boubacar Diouf Daouda Seck Baye Mbaye Ndiaye waaw danoo réer de réew mi quotidien ne accident yi nga xam ne nag maanaam ñoom ñooy am ci biir géej gi day waaw ci ñetti weer lu tolloog ñeent fukk ak ñetti ci ay doomu aadama dee ñoo dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te gis nga ca jamono joojee ne nag ndaw yaa ngay dee ca biir géej gi day say suñu kilifa dooleel ñi nga xam ne maanaam ñoom ñoo séq nag élection locale waaw ña ngay rayante maar di taali waaw parce waxtaan di dialogue bi nga xam ne moo amoon ca sous commission dialogue boobee waxtaan nu ñuy tax la de ci nopp bi génn ca nopp ba ca des parce que Cheikh mi nga xam ne mi ngi bokk ci Benno Bokk Yaakaar waaw nee ngir ñu organiser nag élection liggéey bi daal lu tolloo fukki weer ak benn kon la war a duré way Samba moo Ndiaye Cissé waaw nee na yi ba 2022 day mbir la moo xam ne nit mënu koo tey te duñ la wax très bien ça les ko yéene kaay ne élection locale yi de waaw waxtaan ba juboo amul désaccord total ah, na 2021 seen xeex bi de mar di tali parce que conseil des ma Macky Sall ci boppam daal weeru février février waaw ba ñu toog xaarle le quotidien yéene kaay ne ajati nañ ko de évidence yéene kaay ne waaye opposition bi de nee ñu lu njiig nguur gi ci boppam mooy njaak ca jamono jooje sur quotidien nee na coowal Ousmane Sonko day day delluwaat ci assemblée nationale nag kalaame bi nga xam ne kon député kalaame woon nañu ko ngir ñu nii topp bi nga xam ne kon ñu ngi topp nag njiital Pastef mi ne l'observateur ne en coowal Adji Sarr ak Ousmane Sonko day jur na musiba ko de gaa ñaa nga toog seen kër de mardi tali liggéeykat contractuel yi nga xam ne ñoo nekkoon ca osan dàq nañ leen la ilaha illallah sursaane la nooya nooy na nooy na nooy bi day moo de fast track lañ ko indi de taf taf parce que Guy Marius Sagna Assane Diouf Clédor Sène waaw mujj nañ leen ne ci kaso bi day alhamdulilahi rabbil alamin réew mi quotidien ndaw yi nga xam ne ñoo ànd ak Ousmane Sonko Pastef ca diwaanu gi ñoo nekkee waaw ñoom tamit génnee la wax la pour la te boo leen seetloo coowal suite ba tëggoo kay lañ na ca biir man daal en tout cas musuma cee wax man Bougane Gueye Dany la fond non te ba ma ko seetee it da ngeen li ma ko wax day wuy ji du wuy te tam am naa ci moom confiance moom Ousmane Sonko waaye dara pour éliminer Ousmane Sonko la woon rek Bougane Gueye Dany mooy wax du samay kàddu de njiital gëm sa bopp day waaw daal dinay songo attaqué na discours yi nga xam ne ko na te loolee nag mi ci ñooñu Ndari ne président Macky Sall ci boppam moo war a wax ak jege ñaalam yi lee ci seen discours yooyu nga xam ne lu dangereux la ngir jàmmi réew mi njiital gëm sa bopp day waaw nee na ay chef de l'opposition yooyu yooyu ay mbirum caaxaan la gars yi dañ ñoo bëgg a divertir exclusive yéene ka ne candidature Ousmane Sonko de waaw fam jëm Yankhoba Diattara éliminé na Sonko Madior Fall ma ngay tëyeer machine 24 heures yéene waaye gis nga nag buur la doomu politique bi dem ay élection sàcc ko aj ay élection jël ay doomu aadama tëj leen ci kaso bi wala ay policier di rey ndool gi fi ne loolee ci boppam kon moo war a changé laa la wax looloy dëgg de yéeni kaa gi ne waaye nag gis nga politiciens yi lée nekk ci nguur gi ak opposition bi ah nañ xam ne danañu jàkkaarloo ak génération ay jeunes yoo xam ne la woon woon ni na de la woon woon ni na de bu la neexul nga éliminer doy na waar sur ça ne Karim dañ koo daan maître mu Sarr ne ah kay nguur gi mën naa nangu oto yooyee bu dee ci turu Karim la ne waaw maître Moussa Sarr ne waaye nag bu dee oto yooyee dañ koo def ci turu parti démocratique sénégalais day waaw nguur gi mënu ko nangu de parce que PDS bu ñu nangu la ma yoro fay PDS nee na man de xaw ma oto yooyee kan moo ko moom mën na nañoo nekk ci turu PDS wala ci turu Abdoulaye Wade wala ci turu Karim Wade Amadou Gueye day membre MDD la ak nekk de ay baal Karim Wade ak ay Khalifa Sall ak yooyee waaw te ñu continuer nag a yootu sax loolee mënta ne lii mën a nekk kay mooy ñu xoolaat seen at bi wala présidence de la république daal di dellu ginnaaw complètement mënuñoo jóg rek ne dañuy voté ab loi ngir Karim Wade kese wala Khalifa Sall kese Amadou yemu ca ndaxte nee na xam nga Macky Sall daf doon ngand ngandaloo ak a yëkkati ay mbagg ak yooyee nit ñi di leen terroriser waaw waaye boo xoolee ba ci biir day Macky Sall fi mu nekk nii dafa mel ni moo ragal rama Macky day askan wi lée rama Macky yemu ca dee parce que naqarlu na ñi nga xam ne président Macky Sall kon da leen a wóolu xale yi ci boppam sax booy xool ñoom ñoo ko doon défendre rama Macky ne kon nag xale yi ci boppam war nañ leen a bàyyi xel critique yéene ne 2024 waaw carte gi day ne waxuma la sax diggante 2007 ba 2013 Idrissa Seck li ko fi jot a bàyyi dem seen yoon démissionné waaw waaye mbir maa ngay continuer ba léegi ne la day lii day waxuma la góom la waaye waaye est-ce feebar bi ab docteur du politique mën na koo faj ah te sax doon nañ yaakaar ne Idrissa Seck lañ ko fal ca conseil économique ah dana tax nag ba nit ko toogoog yooyee waaye ginnaaw ba dara gataga mi xam ne ko tekki na ndooma dem day dee ca faa ni lée di waaj a parti politique am wax dee tam day dem de ñu ne deet ni waaye Abdou Aziz Mbodj responsable juridique ci élection yi ci parti réew moom i nee na tekki na bëri nag tribune yéene kaay ne waaye yow mburoog soow bi moom mbaaru daa mujj safkaani moo ma jaaxal Eli Charles Moreau ci direct news nee na Sénégal gi la nekkul dëkk bu ñuy jaay te nekkul tam dëkk bu ñuy taal yéene kaay gi ne nañu caxa-caxatee nag brèche su ndarge gëlee chinois yi dee ngay takk seeni bagage en tout cas Ibrahim daal waaw génnee na la fay mitti de ca bël ba Alioune Ndoye day moo lancé woon travaux ya 12 novembre waaw 7 milliards la jar allahu akbar juróomi weer lañ ca bii leeral askan wi laa la wax te gis nga mbël ba lu tolloo ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ci ay doomu aadama ñoo fa dee allahu akbar octobre 2003 ak léegi yéeni kaa gi ne kon nag mbir moomee dañ koo war a leeral nguur goo xam ni scandale rek <laughs> waaye scandale lu bël boobee dee ak lu mu rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy du gën a rëy scandale pétrole bi déedéet moo tax suul gaz du ko xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la waaw nuyu nañ ñëpp ah. tribune yéen kaay ñëw ñun ci. Uh-huh. parti réew mi tàmpi. Uh-huh. moo jaane. Uh-huh. réew mi may. waaw. <laughs> moom bii moom mayi moom. bii moom bii moom day dee moom. <laughs> réew mi moom mayi la jóg moom. <laughs> Ah, parce que journal bi nee na doomu jàngoro ji ñu tuddee tekki ndomba tànk moo nekk foofu. dégg réew mi may. la sabab lu ni mel nag mooy idris sa Seck diggante 2007 2007. de ba mu demee wuyu Ablaye Wade ba de 2013 ñaata doomu adama ñoo ko bàyyi. boo ca toftalee kii jóge fa Dembo Ndiaye di Abdoul Aziz Mbodj balaa moom ci biir semaine bi Badara Gadiaga moo dem Déthié Fall ngay taxawal dem parteem waaye li ñu tuumaal Idrissa Seck mooy daa yóbbul kenn. yéen a kaay dee média gi ne waaye yow mburoog soow mi xanaa léegi day bëgg a saf na kaani réew mi may. moo tax problème réew mi Idrissa sa la. c'est sûr. moom la problème bu front bi ni mu demee. depuis euh, euh, depuis Abdourahmane Diouf ak ñoo ñëpp fa jaar. waaw c'est-à-dire problème bi nekk du problème politique mais problème mu Idrissa Seck la. Bougane Gueye Dany expliquer lu tax mu doon jàppale Sonko. jàppale wu Sonko mais démocratie mu Sénégal bi ci boppam. nee na moom la doon xeex gars yi quest bu qu'il voulait éliminer Ousmane ko suñ jógee ci moom à qui le tour moo sampoon laaj bi de waaye wax na ci discours mbirum ethnie diw joolaa la diw tukulóor la diw olof la diw manjaak la et cetera et cetera muy discours bu dangereux bu gaan ngee dani ne président Macky Sall nag war na wax ak ay nitam parce que ñoom ñoo gën di ñoom ñoo gën di di eh, voilà di wax yooyu dégg wal fa jëriñoo ñin ci sénégalais yi ñoo doon togal fële ci duwaanu Gambie dégg nga ngi nii nag France moom nee nañ nañ leen ci kaccat dégg nga loolu Farba Senghor moom la mu xam ne mooy Karim moom pare na ci yàlla ay adduna suñu laa ilaha illallah ci box boog li ñëw ak ñun ci Amadou Gueye mii membre MDD la pour seetal Karim ak Khalifa ñu amnistie leen nee na mënuñoo voté benn loi pour deux personnes deux personnes rek rek rek boo voté loi mënul ne dégg nga loolu leen nay mën a ne de ñu xoolaat seen atte wala présidence de la république bu boppam rocceeku dellu ca ginnaaw ba ñu set te gis nga Macky Sall Macky dafa demoon ba terroriser nit ñi ñun famille guerrier la ñu bokk bu ñu jàppee duñ bàyyi Macky effectivement bu jàppaan du baax waaye dafa mel ni la peur a changé de camp léegi Macky xamal la woote yaas mm-hmm. na nooy na nooy de. na nooy. na nooyee nooy. na nooyee nooy. na nooy. ba mel ni xaar. ah ma jëlaat. na nooy gi lu tax mu ne. non c'est que c'est que kii MD da ngay waaru quoi del jël Siré. déedéet la star du plateau c'est Siré. dégg nga loolu. Siré Tampi. Siré euh, euh, Modji. Siré Mbaye. Siré Mbaye. <laughs> ah Ndeye Jërëjëf Siré s'il te plaît. non vraiment non mais non. mais Jërëjëf Siré. amen Siré léegi dafa firi dafa bàyyeeku. non Ndeye Jërëjëf Siré avant il se retenait bëggul woon sax de mais léegi dara ba daanu ci table ba lay saal. am di match non. Siré voilà le voici monsieur Siré là. non mais kii. Siré. oui. Siré jubal waay nit ñi gis la. waa <laughs> Siré waaw. voilà sëñ Ahmed. Siré. oui Ahmed. voilà. naka fay. Siré dañoo ñëw ak ñun ci coowal Ousmane Sonko day dellu assemblée. day dellu assemblée de. kalaame gi député kalaame woon ca conseil constitutionnel. nee nañu day delluwaat fële ca assemblée nationale. donc source a ñëw ak ñun ci cent trente huit milliards. mi ngi ne mi ngi lalu ci ndoddal Karim contrainte par corps baa ngi fi su dikkee te fayul jubali kaso ba waaw est-ce que oto yii ñu wax ne Karim a ko joxe ndax buur mën na koo nangu bu dee alalam la maître Moussa Sarr ne ah kay bu dee oto yi ci turu Karim lanu ne Karim yoreel état xaalis mën na nangu ay otom waaye su dee oto yi nag ci turu PDS lañ ne nag du ko mën a jël de déedéet parce que association reconnue la lay lay non siree ngi neexal palaat non man non man dem naa non bu jege gas no gaaw amen amen amen kon ne amen sama poste bi laa ko defoon meere ba daal waaw mais télé bi toj waaw mais fii man waa li waa li ban façon portable la sa micro delluwaat si pourtant maa ngi. <laughs> dégg nga loolu. waaye su nag oto yi dafa ci turu PDS. waaw. ko mën a du a jël parce que PDS association reconnue la. Mayoro Faye ne xamul ndax oto yi Ablaye Wade ko moom PDS ko moom wala Karim ko moom. dégg nga loolu xoolal la nooyee nooy gaa ngi nii en mode fast track. bàyyi nañu kii di Assane Diouf Guy Marius Sagna ak Clédor Sène na nooy Macky na nooy la woote réew mi quotidien nañu même booy jàppoon ca diwaanu bi ñoo na bàyyi yaakaar gaa ngi ni di judd ñoom ñett yi mujj nañ leen a bàyyi le quotidien yi nekk a ñëw ñun ci ajat nañ ko encore un report conseil des ministres bi dëggal na ko ni ki dem libération yéen kaa ñëw ñun ci coowal xale bu jigéen sure waaw boobu noonu ñu pièce ca diwaanu Maroc ak maire beñe mu ngi nii maire bi ñu ngi nii dégg nga loolu exclusive yéen kaa ñëw ak ñun ci Yankoba Diattara moom éliminé na Sonko. Madior Fall tailleur machine. def na ba mbaax ku ci ne daal wax na li tax mu ne Sonko mën tam nekk wala boo bu ko lii dalee du ko mën a nekk laas yéen kaa ñëw ak ñun ci ñi ànd ak Macky Sall yëpp février deux mille vingt deux lañ bëgg ñu tëgg élection yi dégg mhm. yaas il faut qu'on fasse signer. <laughs> voilà dégg gis nga recomposition politique day awaat. 2024 moom ci nii ak ci nee. enquête yi yéen kaay nañu gars yi de waxtaan nañu waaye jubóo. sous commission politique bi kon élection locale yi dañu koy mujj ak Birahim Seck ñëw ak ñun ci bël ba def nañ fa juróom-ñaari milliards quatre cent et quelques doomu aadama dee nañ fa ca Ndar chinois ay doo liggéey commencé sànce juróom weer ñu ñibbi kon nag Alioune Ndoye ñëwal leeral nit ñi askan wi ñëwal leeral leen jihadis si tekki seen doom ba tànk ca boko xaraam nag waaye yow man mais jeex na. waaw. Ah. ñu nii politique ba woon ak léegi bokkul de. gis nga non politique la ñu ngi ak génération bu bees. Alioune Tine xam nga moo fa la jógee Sénégal lu politique boobu nga xam ne ci élection ak élection. Oh. prisonnier politique. Oh. policiers yi rey. Oh. ndóol yooyu dafay war a jug la woon la woon woon nii waaw léegi moom Sénégal bu bees rek ak Fuuta bu bees waaw ak Fuuta bu bees tampi wala Fuuta tampi ko Fuuta maay Fuuta moo ji. Bandiraɓe sehilaɓe. yóbbuwaale Siré yóbbuwaale Siré. Siré ñëwalaay Siré Ndiaye. voilà euh, merci beaucoup Siré. Siré borom baax na kenn gënu la. merci mais la prochaine fois téléphone bi def ko vibreur d' accord. wala silencieux ah. <laughs> voilà merci beaucoup. wala nga dina koy kii rek. <laughs> Mame Mbaye Ndiaye nag la ñuy daal di la <laughs> ñuy daal di dalal rek. mu daal di faram-fàccee xibaaru suba si léegi nii lay doon incha allah mu jàppandi ànd ceeg El Hadji Mansour Diop ak Birahim.